Pape <laughs> Faye euh, ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di fay itam. ñuy fàttali euh, suñu auditeurs yi ne yow yaa jiite association artistes comédiens du Sénégal ñu gën ko xam ci turu ARCOS tey ji ARCOS euh, namm euh, daal di gelé bépp activité bi jëm ci màggalu journée mondiale du théâtre ngir ñu jàppale gouvernement bi ci li nga xam ne moom mooy xeex pandémie bi nga wax ñu ci tuuti. waaw di kontaan ci laaj bi ma laaj. di wax ni ñun bi nga xamante ni mbir mi yëg na Sénégal ba commence ministre de la santé euh, def communiqué pour wax ñaati cas positif ñoo am mm-hmm. euh, ñun dañu rafetlu euh, d'abord communication boobu la di rafetlu jataay bi ministre de la santé amoon ak ministère de la ministre de la culture mm-hmm. jàkkaarloog ñun ñi nga xamante ni. ñooy wéy di liggéey ci wàllu ca euh, aada ak cosaan et ñu koy wax acteur culturel mm-hmm. biñ defee réunion bi fële ca maison euh, ca grand théâtre euh, ñu jox ñu nag ay ay ndigal ay tegtal ne nii ak nii la ñu war a def justement pour accompagner askan wi dégg nga ma à travers des messages de sensibilisation bu ñu paree ci loolu ñun dañu amoon benn réunion bu ñu defoon fële direction des arts doon préparer journée mondial du théâtre waaye lañu fa jëlee tënk ko mooy que ni journée mondiale du théâtre duñ ko màggal at bi ndaxte euh, pandémie bi feebar bi nga xamante ni moo law ci àdduna bi ba yëg si Sénégal kon lépp lu ñu jëloon comme matuwaay pour jéem a def ay ay yooyu dañu koy ak ba jëmmi jamono ba sunu borom bi euh, defal ñu li ñu bëgg ci feebar bi muy mu joge fi Mhm. ñun ñëpp ñu tënk ci loolu fas yéene ko ni doxalee ba tax ni bi mu amee man nga xamante ni man maay kii jiite kuréelu arcote fii ci Sénégal mhm. dama woo ñii ñu toogal ci gox-goxaat yi ak ci département yi ca arcote foofa wax leen ni buñ commencé woon ay répétition nañu ko teg ci suuf nañu ko bàyyi te seet ni ñuy sensibiliser ñaax askan wi ci naka la ñu war a mën a moytoo bi di jàngoro parce que dafay law dafa gaaw a ñoom ñëpp ñu d'accord ci loolu ma wax ñu tënku ci yàlla dogal na cëllëg sa le président de la république def déclaration ne rassemblement yeeg yëpp dañu koy arrêté parce que feebar bi jaaxal na adduna bi donc mu nekk lu méngoog sunu gis-gis di ci gërëm président de la république di ci gërëm ki nga xam ne mooy ministre de la culture et de la communication di ci gërëm itam ministère de la santé. Mhm. ndaxte ñun bu ñu defee sunu communiqué dal di ko jàllale ci euh, askan wi ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci way euh, ñi yëngatu ci wàllu aada ak cosaan. Mhm. Euh, ministère de la santé dafa jokko ak ñun xamal ñu ne kontaan nañu trop ci wax ji nga xamante ne wax nañu ko ñun association des artistes comédiens du Sénégal jëm ci dimbali jàppale askan wi ngir ñu mën a faggu bu baax ci wàllu feebar bi dafa mel ni dégg nañ leen ci message bi nga wax ne si ñoom la war a jógee ngir artistes yi mën a véhiculer seen. wala euh, loolu la loolu laa wax parce que ñun dañuy bañ artiste bu ñu nekk jóge fële di wax nu la neexee di di waye ñu la neexee di non du loolu moo tax dañu ne dañu bëggoon ki nga xamante ne kii mooy jëwriñ ji ñu dénk Euh, wérgu yaramu askan wi mm-hmm. moom mu ñu xamal ñu ni ñun terme technique yii la am yii la ñu bëgg ngeen tënku pour mun a jàllale message bi moo tax ñoom ñu envoyé ñu ko biñ ma ko envoyé demb ak barki demb yëpp dama ko jàllale ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ARCOT ñu ngi ciy liggéey jamono yii mais avant sax ñu leen di avant sax ma leen koy envoyé mm-hmm. message yi ñoom commencé woon nañu di yëngatu ci sensibilisation mm-hmm. waaw léegi nag liñ ci wax moo di comme dañuy yëngatu ci sensibilisation pour bañ nit ñi di jege ñi ñoom itam nañu ci seen sensibilisation ñu respecter eh bien ce qu'on appelle les distances sanitaires mm-hmm. ah nga xamante ni eh bien nit ki mun nga ko sensibiliser te doo ko jege jege boobu la te am matuwaay yooyu jël. Mm-hmm. ci fagu mooy maanaam nooy raxas say loxo saabu nooy def gel bi masque bi noo koy tege ak boo sa raxasoo bu pare fan sànni. li nga xam ne mooy mouchoir bi ci mbalit ci kii bi ci ci poubelle bi ak yu mel noonu yooyu yëpp jox nañ leen tegtal yi nga xamante ni moo war pour mun a sensibiliser parce que booy sensibiliser ni ci wàllu cet fok mm-hmm. faut que yow nga xam ngay cete d'abord balaa ngaa sensibiliser waxtaan nañ ci ak ñoom waaw. Mhm. ci euh, sensibilisation bi sax anam gi ñuy jàllale message bi yow nga bëgg ñu euh, cadrer euh, li nga xam ne moom mooy anam gi donte am na ci ay artistes yi nga xam ne ku ci nekk am nga ci ni ngay yëngoo am na ñi nga xam ne comédie la ñu gën a fort am ñi nga xam ne mën nañoo joxe message te kenn du ci gis comédie tey ji nga bëgg tey loolu yëpp ñu tënku ko ci sérieux lan moo tax nga taxaw taxaw. waaw li tax ma ma kii ko xam nga comédie ñaare boo ko déggee mooy euh, di wane ay ay misaal euh, jëme ko ci yenn wax wala ci yëngu ay geste pour ki nit ñu mën a reetaan loolu mooy comédie mm-hmm. te dañu toll jamono boo xamante ni bii euh, waruñu di nekk naan dañuy reetaan loolu nit ñi ci problème bi nga xamante ni dafa nekk problème bu sérieux mm-hmm. donc bu ñu message bi dañ koy jàllale ba nga xamante ni bi kii seetaan au lieu mu ne fi di reetaan di xaxataay ak kii xam nga bu defee loolu dafa mel ni que bon message bi ñoru leen mm-hmm. ah donc dañu ah, dañu ci accordé importance moo tax dañu ne bu ñu koy sensibiliser bu ñu sensibiliser askan wi nu ñu di leen di eh, ay loo comédie ak yooyu quoi yooyu taxul ñu jóg waaw parce que mën nga def théâtre da ma jàllale ay message te nit ki jële ci xam nit ki mun ci jële xam-xam ak njariñ ak lu koy jariñ moo gën nga di ko reetaanloo wala loolu la ñi loolu moom dañ ko war a éviter parce que sinon on va prendre toujours le comédien comme étant ay guignol on les prendra jamais au sérieux te loolu vraiment daf bokk ci combat yi nga xamante ne ñun dañ koy mener parce que aujourd'hui askan wi wérgu yaramu askan wi mooy li nga xamante ne moo ñu ñor tey parce que situation bi dafa nekk situation bu bu garaaw moo tax ñu ne artistes yi surtout ñu yëngat ci wàllu comédie di suñuy ay collègues ñooñ nañu jël seen responsabilité par rapport ak euh, yii nga xamante ni moom la ñu teg waaw Mhm. loolu daal ci la ñuy daw. d'accord euh, xam nañ ne artistes comédiens yi ñoom ngay taxawal waaye tey jii art dafa doon euh, benn environnement bu yaatu ba tax na war nañ ci mën a laaxaale ñëpp euh, wax sax si kàddu yooyu nga xam ne am nañu ko jot a ndax gis nañ ne ay xumbute daal nañ ko dakkal wala sax ñu daal di ko ajandi bëri na ci ay artistes yi nga xam ne def nañu li ni mel tey jii tamit am ñuy woote ngir ñu taxawal ay fonds de solidarité nationale ngir jàppale secteur boobule tey lan mooy sa taxawaay yow xam nga xam nga xam nga tey bu ñu toogee tey di woote euh, mise en place d'un fonds de solidarité nationale waa gaa d'accord nañ ci loolu mm-hmm. waaye loola dafa waroon a am jam avant avant avant yi parce que ñu mm-hmm. yàgg nañu di euh, ñaxtu pour ñu tegal ñu fonds de solidarité nationale mm-hmm. bon bés bi ñu ñëw na bu fekkee na fonds boobu amul ñun dañuy demee ak suñuy pare waaw parce que ñun kat wax dëgg yàlla fonds de solidarité nationale bu ñu ko tegee ah ñun ak li nga xam bu ko tegee bu ñu ko tegul ñun ñu ngi dem ak sunuy pexe sunuy xam-xam mm-hmm. ak sunu moyens yu ndaw yi ñu yor parce que baa ngi fàttali ni en 2013 mm-hmm. jamono mbënd mi bi fi amee ñun dañu jëloon suma xaalis ñun ARCOS national projet boobu Dakar moo ko porté woon mm-hmm. dañu jëloon suma xaalis tolloog ci un million ah ñu dem ministère de l'intérieur ne ko artiste comédien yi ñoom ñoo jàpp ci lii pour ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bënn mi nekk ci ay guddi yu bët setegul ñu kontaan ci lool te jàllale ko à la RTS loolu ndam la woon boo xamante ni ci ñun la mais bu ñu paree ci loolu ah dañuy di itam di continuer di cotiser suñu biir ku am dix mille cinq mille trois mille deux mille ñu dajale bu ñu gisee koo xamante ne kii wala ñu dégg koo xamante ne kii dafa nekk ci ñun bokk ci ñun yàlla dogal mu tawat wala mu jafe nekk ci ay jafe-jafe adduna hmm. ah ñu dem def délégation dem seeti ko jox ko la ñu am te kenn du ne wax jox nañu diw nangam ak nangam ñi jox ñëpp xam nañu ni ñu toll mais doo dégg mukk ñu ne diw la ak diw ak diw ak diw parce que nit ki boo koy jàppale doo wër di ko weer na nangam ak nangam ak nangam ñun noonu lañ defoon ba tey nii doo mos a dégg ni association des artistes comédiens jàppale leen diw jàppale leen xanaa ñoom ñu wax ko waaye ñun ñu ko wax waaw li ñu waroon daal mooy def nañ ko léegi xam nga loolu fonds de solidarité la boo xamante ni bi ñun suñu jëmu bopp ñun ñoo ko créé suñu bopp mm-hmm. buñ si état fekkilee fekk se baax na bu fekkente ni itam ñëwul itam ñu considéré na xëj na bon euh, voilà peut-être que euh, dafa am ay gàllankoor yu ci nekk ah mais bu ñu ñëwee moo ñu gënal bu ñu ñëw itam ñun li nga xamante ne daawoon nañ ko def démb barki démb incha allah suñu yàlla mayee jot bi bay ñu euh, moyens yi daañu ko def. waaw kon woote bu dagan la daal. wala wala mi ngi noonu voilà woote bu dagan la effectivement. d' tey artistes yi gis nañ ne euh, gis nañ tamit ñu bëri seen taxawaay ci riposte bi plan de riposte au Covid 19. Mhm. nan nga ko jàngate justement nan nga ko apprécier. waa artistes yi euh, dans leur entièreté mooy xam ci nekk ci. ay ay ay comédie théâtre moo xam ki nekk ci cinéma bi moo xam ki nekk ci musique bi wala ci li ñuy wax culture urbaine wala ci ñi nekk ci maanaam pecc mi ak yooyu mm-hmm. wala moo xam ki nekk ci ay misaal maanaam ay peinture ay dessin art visuel ñun ñëpp parce que Demba Ndiaye la ñu tase fële maison de la culture du Tassette ci kanamu ministre Abdoulaye Diop justement euh, pour euh, dal di ko euh, wax kon pour wax ko ñun ñu ngi sa gannaaw wala ci li ngay woote nii pour ñu jàpp ci incha allah dogo nañu ba sub tey li ñu gën a dogo pour jàppale la waaw te mu kontaan ci lool lool ñëpp ñëwoon ah, bindkat yi ñoo ñëw woon xëy na dañu ko déggul woon mais rendre nañ leen compte ci li nga xamante ne joxoon na fa am. Mhm. loolu mooy Sénégal ku ci nekk te la nga yëngu nanga nga fexe noo ci mun a jàppale doomu askan yi nga xamante ne dañ nekk tolof tolof. ñun loolu lu ñu gëm ci loolu lu ñu dox incha allahu rabbi te am nañ yaakaar ne ah état gis na li nga xam ne def nañu ko jéego yu ñu def te itam wax dëgg yàlla kuñ ci fekk si itam vraiment dañ lay gërëm di sant ku ñëwul itam ñu xëñ na xëñ na dafa matalewul mais am nga yéene waaw. tey nag ñu gën di ñaaxaat artistes yi. Mhm. ñu gën a ñu gën a ñu gën a farlu gën farlu ci mbir mi nga xamante ni. su boobaa duñ ne artistes yi defuñu dara dañ naan macha allah artistes yi ça euh, soit art plastique danse musique ou théâtre ak euh, euh, culture urbaine. gis nañ tamit ne ay projet ñoo ngi sortir de terre allant justement ci sens boobu. jëm ci single yeeg taxawaayu sketch yeeg. waaw waaw waaw taxawaayu sketch yi noonu la ñu loolu la soxla loolu la ñu soxla single yi baax na même par rapport même par rapport au single xam nga single yi c'est bien. ah mais li ci am solo c'est pas que la musique ah il faut que les gens comprennent mm-hmm. c'est les messages qui sont importants parce que su fekkee ne da nga génn single way te la nga way di boo di neexal ba kenn du comprendre la ngay wax amul sens mm-hmm. boo génne single te la ngay way kenn xamul lan la mënuñu mënuñu décortiquer la ngay way ba xam lan la looy amul benn sens waaw musique ngay dégg rek un peu de mélodie li am solo mooy les messages c'est ça le plus important aujourd'hui pour ñu mun a waaw c'est ce que j'ai dit au théâtre également c'est pareil voilà donc euh, nañu tënk ci loolu euh, bu ñu bëggee véritablement euh, gis askan wi gis taxawaayu artistes yi mhm. waaw parfait ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup man la may fàttali ne yow yaa jiite association des artistes comédiens du Sénégal ñu gën ko xam ci turu ARCOS merci beaucoup merci merci beaucoup